Euh, sama mbokku rappeurs yi sama frères yi ku ci mel ni Fou Malade depuis jamonoy euh, Viviane frère dafa yàgg Awadi DJ Awadi ah euh, ñeneen ak ñeneen su ma limee damay juum ah donc ñoom dañu yàgg donc tey jii buñ ma marraine les bis bi waa Sénar Vision organiser loolu ku ci mel ni Tafa Djidiack ah ñu marraineel ma loolu rappeur yëpp jug taxaw kontaan ci dama damay am fierté vraiment dugg ci ba jeex parce que vraiment rab bi euh, ñun dañ ci war a teg suñu loxo dañ ci war a teg suñu loxo parce que ay ay ndaanaan lañu ay ndaanaan lañu te ñun boo xoolee li ñuy dem seeneen dem Amérique jëli rappeurs yi américains yi am nañ ko fii ah. am nañ ko fii te mu nekk nag initiative bu nice euh, jël Sénégal jël rappeurs yi yóbbu leen Paris ah euh, jël ku ci mel ni Youssou Ndour neel ko bis bi Viviane ku ko xam-xam ne man nee naa leen su ma mbalaxul woon damay rab <laughs> donc euh, ñu jël loolu wax ko mën a yóbbu digg Paris ah ku ci nekk euh, xeet yëpp war a ñëw retrouver wu ci biir seetaan xool Sénégal lan moo fa yëngu ci rab defe naa c'est important ah euh, sénégalais yi ñëw ñëpp ñëw ñu booloo fete loolu defe naa ne loolu rafet na te maa ngi maa ngi vraiment maa ngi maa maa maa ngi leen di gën a encourager ci ci loolu mu gën a dem ci kanam man Viviane maa ngi seetaan DK TV DK TV au revoir